bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta alaalimu alxakim allahumma callimna maa yanfacuna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 du ngeen leen musa peeg ba di leen dajal bokk na ci xéewal yooyu mu xéewalal ñu waxtu yu julli suba ba ñu teewee ci mbooloo mi ci waxtu su néew ci ginnaaw ginnaaw bu noddukat bi joxe annonce bu toll ni mu naan assalaatu xayrun min an nawm julli de moo gën nelaw ba ngeen nekkee di nelaw ba tax na buur yàlla tabaaraka wa taala ci xéewalam yu matale ci lamu baaxe doomu aadama bi rawatina xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ci la nga xamante ne ñoom rekk ñoo am xéewal ji ndax moom la xéewalu alquran mu doon miracle ba ñu jox suñu yenent bi yenent ba nga xamante ne mooy mujjantelu yenent yi laa nabiya baada amul benn yenent bay feeñ ca jamono ku moom ndax moo tëj buntu nubuwa waaye xeet bi doon xeet ba mujj ci xeet yi ba tax na yàlla nañu ci alquran kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen a fi nekk xeet yu mujj yama tànn ci xeeti ba tax na maa leen jox particularité bu toll ni lama joxul yeneen xeet ñi ba tax na xéewal yooyu bokk na ci lañu yàlla xéewalal nelaw bi nga xamante ne moom la xéewalal mboolem bi ndaafoo ni waaye doomu aadama yi am ci lañ yeneen amul ndax doomu aadama anam yamuy nelaw la ko yàlla bëgg a fàttali ci suñu téere alquran ba ñu yore nii ba tax na bu ñu demee xool ca saar bu ñu naan suratu ruum dinañ fa fekk aaya ba yàlla di wax doomu aadama ci téere alquran ba ñu yore mu ne ko bokk na ci sama xéewal ya ma yore te ma di la ko defal yow doomu aadama bi nelaw ba ngeen di nelaw ci guddi nelaw ba ngeen di nelaw kawtéef la jamono ya ngeen di nelaw waxtu woowu waxtu bu am kawtéef la waaye bokk na ci beneen kawtéef ba nekk fa man yàlla te ma yenkee wal leen ko mooy jamono ba nga xamante ne éclairage bu toll ni jant bi danaan fang seen kaw kenn ku nekk am courage ak sañ-sañ ja toll ni dangay nangoo takk sa ndigg takk sa dàll géem génn dem faggu wërsëg bala yàlla tasal ci kaw suuf si béykat bi wara dem ci tool bi ngir mu dem béy kay liggéey ci bureau bi mu wara dem ca bureau ba dem liggéey ka war a dem ca hôpital ba moom it na dem foofu ka war a dem fa ñuy gasee la nga xamante ne mooy la muy faggoo ci jamono ci gas boobu ngir woo mu war a mën a dund kooku falay jëm ila axirihi jamonoy seddaay yàlla andil ñu lu war a tàngal jaww ji lu war a tàngal béréb bi ña war a la loolu ñoom it ñu mën a gañe la ñuy dundee jamonoy tàngoor yàlla daldi di tàngoor ci jaww ji gars yi ña war a mën a yëngatu cala yi war a mën a seddal béréb ba ñoom ñu war a mën a gañe la ñuy dundee moo tax mu ne ñu loolu ma leen joxoñal nii kawtif ya fa nekk mooy ñey nangoo diglu aaya alquran ak hadis ba sama yonent bi di baaxee xeet bi sallallahu alayhi wa sallam ba koy aaya bi mooy wa min ayaatihi manaamukum billeyli wannahaar wa btigaaukum min fadlihi inna fi dalika la ayatin li qawmin yasmaun bokk ci kawteef ya nekk fa yàlla nelaw ba ngeen di nelaw jamono ba ngeen di nelaw tamit jamono boobu jamono bu làmboo kawteef la ndax leen di maye guddi kenn du ko mun a installé waxtu bi kenn du ko mun a ñoddi kudut yàlla ma ko jox waxtu bu mu war a installé te kaaral ba fay am amul kenn ku nara a forcé nit ñi ñu nekk ci te kaaral boobu kudut buur yàlla tabaraka wa kon nelaw kaawteef la jamono yañ koy def jamono woowu tamit kaawteef la ba tax na mu ne ñu bokk na ci kaawteef ba léegi wan naxaar ak jamono bu ñu naan bëccëg éclairage bi daal di installé wu projecteur ba ñu naan jant moom it mu daal di installé wu fépp daal leer nañ bi ñu am courage ak yëg-yëg bu toll ni dañuy dem faggu wërsëg ba ñu yàlla tasal ci kaw suuf si moo tax mu ne wan naxaar ak bëccëg mu doon kawteef boo xamante ne man yàlla ma leen koy installé ndax ci biir bëccëg jooju wabtigaaukum min fadlihi ca ngeen di war a mun a faggu ngeneel ba leen yàlla placer ci kaw suuf si di liggéey ngeen war a mun a am la ngeen di faggu ñii di si gagné weer wu dee ñii di si gagné journée ñii di si gagné heure ñii di si gañe temps yàlla ne yamaleen joxoñal ci aaya bi inna fi daalika mu ngi ci loolu ma leen wax ni ci aaya bi laa yaatin joo xamante ne ña ko dégg mooy li qawmin yasma'uun ñay dégg la leen alquran di dottil ak la leen xadisu yenentu bi sallallahu alayhi di baaxe yal nañu yàlla may dégg topp ci aaya alquran yi ak ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa mbokk yi xam ngeen ne ba léegi ñu ngi ànd ak yéen ci amalu saalih buñ ne amalu saalih ñu ne jëf ju baax buñ amalu saalih ñu ne wax ju baax buñ amalu saalih ñu ne li nga xamante ne mooy lépp li nga xamante ne kullu maa yuhibbuhu allah wa yardah lépp lu yàlla buur bi tabaraka wa taala sopp mu doon la mu gërëm lépp dina dugg ci buntu amalu saalih ba tax na alquran ca suratul urum ba léegi buur yàlla tabaraka wa taala mu ñu fay wax ne man kafara fa alayhi kufruhu képp ku weddi njekk bañ ko defal loolu mu weddi de moom la concerné ba ñuy duma duñu duma kenn ku dul moom ma weddi la ko yàlla jox ci xeetu taraanga mu teg ci ne waman amila saalihan képp ku di aji jëf katu lu baax ah fali anfusihim yamhaduun boppam la laltaayal la nga xamante ne moom la war fekk ci tiraayu bàmmelam ba tax na beneen saar ci weneen aaya ca suuratul xasr dinañ fa fekk buur yàlla mu ne ñu yéen ñi gëm yàlla yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha na ragal yàlla ittaqullaha na bàbbeeku dem jëf ji jëf ju baax ittaqullaha na ngeen sóoru yàlla ci seen jëf yeeg seen wax yeeg seen melokaan yi waaye nag wal tandiru nafsun maa qaddamat na kenn ku nekk xool la muy jiitalal boppam ëllëg na ku nekk bàyyi xel ëllëg la muy fekki ca kanamam dañ leen ne bu dee nit ñi amuñu jot ngir jox la la nga xamante ne loolu nga war a nekkee ci sa tiraay keroog ba nga dëddoo àddina yow sa jëmmu bopp war ngaa géema góor góorlu jiitalal sa bopp la ngay fekk sa kanam moo tax aaya bi ne la wa man amila saalihan fa li anfusihim yamhaduun képp ku jëf lu baax boppam la jiitalal laltaay ba muy fekk ci tiraayu bàmmelam bur yàlla ne ñu ba léegi ci aaya ba nekk ci suratul xasr yéen ñi gëm yàlla ngalla way na ngeen ragal yàlla na ngeen sóoraale yàlla seen dundin na ngeen bàyyi xel yàlla ci lépp la ngeen nekkee fii waaye nag wal tànduru nafsun maa qaddamat li xadan na bépp ba kenn bàyyi xel na xool la muy jiitalal boppam ëllëg la muy dem fekke wattaqullaha yàlla ne encore une fois ma leen di baamuwaatal di leen baamtul di leen baamul na ngeen bàyyi xel yàlla na ngeen ragal yàlla seen tasarrufaat sen melokaan yeeg seen muamalaat seen jëf yi seen kàddu yi na ngeen bàyyi xel yàlla ci seen jëmm yi te xam leen ne inna naka yàlla xabiirun ku supervise la xabiirun ku deñ kumpa la xabiirun ku peeg la bi ma ca la nga xamante ne taamalun yéen koy jëf de ba tax na yonentu bi nee ndegem yàlla moo gën a xam la ngeen nekkee buur bu peek seen nekkin ak seen melokaan na ko bàyyi xel na ngeen ko suuraale ba tax na ci xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu yonent bi nee nañu sallallahu alayhi wa sallam ida maata al insaanu in qataa anhu amaluhu illa min thalaasin illa min sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bih aw waladin saalihin yad'u lah mbokk yi yal yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot ka yàlla yónni ci xel bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi moo ñuy baaxee ci xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu nañu ida maatali insaanu doomu aadama bu faatoo bu doomu aadama bi faatoo mu génn ci dundu àddina yonent bi ne inqataa anhu amaluhu illa min thalathatin bépp jëf ba mu doon jëf taqale koo nag jëf joojee jëf jooju mu doon jëf léppay dagg taxaw arité illa min thalathatin lu dul jëf ñetti jëf moom du taqale ko moom de julli ba daan julli taqale koo nag moom ndax dootul julli woor ba mu daan woor taxale ko nag moom ndax léegi dootut woor dem màkk bala mu doon dem màkk di dem ko ñëw taxale ko nag moom ndax léegi dootut aji màkk dootut umra jokk mbokk ba mu daan def ndax léegi taxale ko nag loolu dootut mën a dox jokk mbokk jooju bu dee dakaa nekkee woon lam ci jot a def doy na dagg na bu dee daaw ko def nag ah yiw ba ci meññee moom dootu ko mën a amaat sarax ba doon génnee sarax bi dagg na arrêté na azaka yeeg ñoom seen moo tax yonent bi ne doomu aadama boobu génn ci dundu àddina in qataa anhu amaluhu illa min thalathatin bépp jëf ba mu doon jëf taqale koo nag jëf yooje ba mu des ñitti jëf ñitti jëf jooju képp ku ko bëgg xam nag ñu topp ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar mbokk yi nañ leen may nopp yonent bi mu yekkal ñu ci suñu ndabu xol lam ñu ne loolu mooy ñetti jëf ba dul dagg ci jëfu doomu aadama gannaaw bu doomu aadama bi génnee àddina ndegem mboolem jëf bam daan jëf dañuy taqale ko moom ba des ñiti jëf sallallahu alayhi wa sallam nañu illa min sadaqatin jaariya xanaa du loolu lay des ak moom mooy sarax bay nekk di wéy du dagg be faw ñu ne sarax bay wéy du dagg be faw mooy amaana daa am yoon bu mu xàlle nit ñi di fa jaar wala mu am bérébu fajukaay ba mu tabax nit ñi di fa faju wala mu am bërëbu jàngukaay ba mu tabax nit ñi di ci sàkkoo xam-xam àddina ak xam-xamu àllaaxira di xam-xamu diine wala mu bind fi la nga xamante ne mooy la nit ñi di jëfandikoo ci xeetu xam-xam moo ne bu fekkente ne jamono ju ñu toll ni lenn ci kilifa yi ñu joxe ndigal ne nañ leen jëmbat la nga xamante ne ëllëg ci biir même buñ fi nekkul loolu ñu jëmbët ci xeetu garab ci xeetu meññeef lañu jëmbët mu meññ même buñ fi nekkul ndegem nit yaa ngi koy jëfandikoo ndegem njanaaw yaa ngi koy jëfandikoo ndegem bayima yaa ngi koy jëfandikoo yiw bi dinañu fekk foofu ñu tëdd kon la kilifa yi sumb nii nañ leen géem a góor góorlu fekk leen ci ñu ànd ak ñoom faggul suñu bopp yiw joo xamante ne ëllëg la dut yiw yiw ako ko gën foofu keroog bés pénc moo ne ñoo ngi ni joxe autorisation bu toll ni ñu jëmbat garab kenn ku nekk sa bunti kër boo fa mu nee jëmbat garab sax baax na foo mun a jëmbat garab nga respecté ko saa yow xëyee mu nekk sa deuxième programme garab bi ma jëmbat béréb sangam nu mu toll fu mu tollu walla sax nga fay nit mu di la ko arrosel mu di la ko toppatool di la ko jekk-jekkaaral ba keroog garab jooju di mucc mu doon garab ji nga xamante ne jëmbët nga ko ci sa dundu yow it wallahi yal na yéex waaye bés bu ñu tàqali kook dund àddina si ci la ñuy xam ndekete njëriñ ba nekk ci jëmbët garab aa ah, ëpp na foo ko natt weesu na ko yenentu bi nee nañu ñaareel yiwu bay fekk néew boobu foofu mu tëdd mooy aw ilmin yuntafau bihi walla mu bàyyi fi xam-xam woo xamante ne nit ñi dinañ kaa jëfandikoo di si njëriñu xam-xam woowu de da koy fekk foofu mu nekk moo tax mu ne ñu aw ilmin yuntafau bihi wala xam-xam woo xamante ne da ko fi bàyyi moo xam téere xam-xam la fi bind bu ñu fii xam-xam nag xam-xamu diine waaye xam-xamu àddina ba nit ñi di njëriñu tamit ca la bokk waaw xam-xamu diine la fi yonent bi wax waaye xam-xam ba nit ñi di njëriñu ci seen côté àddina ca la bokk xam-xam boobu de képp ku ko yàlla yënkeewal nga xam ko nga jàngal nit ñi bàyyi ko fi nit ñi tënku ci xam-xam boobu ñu di ci xàmmee walla ñu di si fagu la leen di may teraang yiw boobu képp ku ci bénéfice wu yiw boobu de dalay fekk sa teraayu bàmmeel ñetteel bi yonent bi ne ñu aw waladin saalihin yad'u lah wala buur yàlla may la doom ju baax doom joo xamante ne danka jébbal borom bi tabaraka wa taala jox ko yàlla ngir mu jàng téere yàlla waaye nga jàngal ko la nga xamante ne mooy doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa nga jàngal ko alquran mu xam la yàlla atte ci téere bi waaye nga jàngal ko doxalinu yenentu bi sallallahu alayhi wa ci ay jikko kooku mooy doom joo xamante ne yenentu bi neena na saa yi mu tàllalee loxoom ñaan borom bi subhaanahu wa ne ko allahumma xfir li wa li waliday allahumma xfir lahuma warhamuhuma kama rabbayaani saxiira ñaanam yalla dakay nangu ndax danga yóbbu ci fa muy xàmmee fa muy jànge ñaan ba doom di ñaanal ñaari wuy te loolu moy daara yeg fa ñuy jànge alquraan kon yow mi di wayjur bu góor wala yow mi di wayjur bu jigéen ngalla waay nañ leen jàpp loxoy xale yi yóbbu leen ci daara yi daaray vacances moo xam wala daara yu nekk ci koñ yi wala sax lu teey nga fay benn waay bu jàng alquran moo xam ustaas la walla yaa sayda mu ñëw bokk ak xale yi kër ga ñu bokk ak yow mi di woy jur benn ëtt bi ñu bokk di jàng alquran lañu ci yàlla wërsëgal ci jamonoy vacances ñu doyloo loolee xanaa nu mu néew néew néew cépp ku jël sa waxtu jamonoy vacances ba ñu nekk ni nga di jàng alquran fukki saar yu mujj ya nekk ci alquran la ko tàmbalee ci suratul fiil min suratul fiil ila suratul naas la ka tàmbalee ci qul auzu bi rabbin naas bi keroog ngay àgg ci alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil wala moo xam yaa tàmbalee ci kaw alam tara kayfa bi keroog ngay àgg ci qul auzu bi rabbin naas fukki saar yooyu du ñàkk nga am lu digir ling ci war a mën a for su ko defee nga paase vacances bi ci njàngum alquraan ak njàngum lenn ci sa diine loo xamante ni amaana jamono bi nga nekkee ci année scolaire bi mënoo koo jàng mënoo koo xam comme léegi vacances bi dugg na jëlal programme ba ngay waajalal sa bopp waajalal ko xale yi jàng la nga xamante ne mooy diine bi ndax képp ku nekk su ñun du jaas bu ñu dee dikkale ah dinañ ñu laaj ci suñu bàmmeel yaa abdallah man rabbuk yow jaamu bi yàlla bi ana kan mooy sa boroom bu doon danga ngaa yàlla xam nga yàlla ci gin ci xamin nga xam yàlla ci ni ko yonentu bi jàngalee wéetal ko ci nguuram ak ci melokaanam yu selli ak turam yu màgg yi nga wiital ko ci sa xol ci sa pas-pas ci sa doxalin ba nga deewaaleeg anam jooje keroog bu la malaaka bi laajee yaa abdallah yow jaamu bi yàlla man rabbuk kuy sa borom danga ko noon allahu rabbi yàllay sama borom wala nga ne ko rabbi yàlla sama borom de du kenn ku dul yàlla ñu daldi la posé ñaareeli question ya yaa abdallah yow jaamu bi yàlla wa man nabiyuk ana kan moo doon sa yenent bu doon da doon topp njeexentalu yenentu bi di déglu xadisa yenentu bi di gëstu dundu yenentu bi di géem a topp la fi yenentu bi digle ndax moo ñu ne taraktum ma in tamassaktum bihi lan tadillu baadi aw taraktu fiikum bàyyee naa leen laa xamante ne maa ma tamassaktum bihima fekki na ngi ngoy ci ñaar ñooyee lan tadillu baadi du ngeen sànku ginnaaw si du ngeen réer xatta bu fi nekkul du ngeen sànku sama ginaaw waaw ñaar yooyu ñu yonent bi bàyyee mu ne ñu kitaaballah te mooy téereb yàlla bi na ngeen si ngoy na ngeen si taqrib na ngeen ko faale na ngeen ko safoo na ngeen ko yëg na ngeen ko dund wa sunnati ak sama doxalin fekk yéenaa ngi mooy ci téere yàlla bi ngeen safoo ko jàngal ko njabooti installé ko ci seeni programme dundin seen système doxalin mu am la ngeen ci comp donte du lépp ngeen di doxal waaye mu am li ngeen ci référé wu ah ak sama doxalin amul sikk ne du ngeen sanku sama ginaaw waaw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne loolu ma leen bàyyee day fekk yi nañ ci mooy du ngeen sanku sama ginaaw te moo ñu ne ci maanaa xadis ne ñu amul kenn koo xamante ne jullit la dina béy meññeef walla mu jëmbët ab garab mu am doomu aadama ba jëfandikoo loole walla mu am picc bu ko jëfandikoo walla bayi ma lulut loolu ñu jëfandikoo ci loolu nga bay walla loolu nga jëmbët yàlla dina la ko defal sarax moo tax ci xadiisu anas bin malik radiallahu anhu yenentu bi salaa sallam ne ñu maa muslimin amul benn jullit boo xamante ne yaxrasu xarsan dina jëmbët ab garab aw yazrau zaran wala mu béy la nga xamante ne lañu ñu war a béy la fa yaakulu minhu mu lekk ci loole tayrun picc mu am picc yamsu yamu jëfandikoo ci loolu nga béy wala loolu nga jëmbët aw insaanun wala doomu aadama am lam ci jëfandikoo aw bahimatan wala bàyyi ma am la mu jëfandikoo ci loolu nga béy wala loolu nga jëmbët moo xam garab la moo xam béy bu gàtt la képp ku jëfandikoo ci loolee ci xeetu lekk ah yonent bi nee na illaa kaana lahu bihi sadaqa loolu picc bi jëfandikoo ci la nga béy wala la nga jëmbët yàlla dina la ko defara sarax loolu doomu aadama bi jëfandikoo la nga béy wala loolu nga jëmbët yàlla dina la ko defaral sarax waaye loolu bàyyi ma bi jëfandiku ca la nga béy wala la nga jëmbat lu dul yàlla dina la ko defaral mu doon sarax ñeel la kon ndegem lii dafa bokk ci doxalinu yonent bi sallallahu suñu kilifa yi njiitu réew mi ak ñamu àndal sumb lu toll ni jëmbat garab kon ndegem dañoo ñaan ñaax askan bi ngir ñu bokk dund li nga xamante ne mooy lañu ñu sumb la war ci askan beeg waa penc bi mooy ñu fekk ci leen ci faggutee fu yiw ba ñu xàllil askan bi mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yëg fa ñu yëkkat fu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a jibbal béréb bi ñu war a joxe xibaar ci nasaraan noo ngi ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana yan nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne bu ñu déggee kàddu dañuy tànn la ci gën a rafet dañuy bàyyi xel la ci gën a jekk nasalu llaha jalla wa ala an yuwaffiqanaa ilaa maa yuhibbuhu wa yardaah allahumma aati nufuusanaa taqwaaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaaha allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih illahumma a'immatana wa wulaata umuurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin aqulu ma tasmaun baaraka allahu lii walakum fi lqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyaakum bima fihi min alayaati wa dikri alhakim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu